rahman mooy yàlla mi nga xamante ni yërmandeem amul exception xooli si ku nekk ci lim bëgg wala ku nekk ci li ko naqari ar rahman fii yaa ngi ci kaw suuf rek ci yërmande yàlla ngay dund bu dee ar nag yërmande la joo xam ni dafa am ñu ko jagleel moo tax boo ñëwee ci alquran baatu rahman bu ko yàlla waxee dafay dafay généraliser mais baatu rahim nag parfois yàlla dafay indi baax bikum rahiman gis nga bikum rahiman maanaam baatu rahim toujours dafay indi baax baax boobu soit muy baatu taxsiis am ñoo xam te ne ñoom la ko jagleel kon rahman moo gën a yaatu ci rahim ar rahman rahim bi nekk ci bismillah du bokk ci ak bokkul ak ar rahman rahim bi nga xam ne moo nekk ci fatiha ndax alquran But, bu si répète, même buñ ko répété même bat bi même bi dina am différence ma jox la exemple ci rahman fa bi ala rabbikuma nga xamanteni amna fa fa bi ala rabbikuma yu bare mais fa bi rabbikuma bu si ak du bokk firi parce que contexte ba ak circonstance bi du ñu bokk ma jox la si exemple tey su ma jàkkaarloo woon ak Moussa ma ne ko musaa may naa la oto ndax da ngay weddi li ma la defal musaa may naa la kër ndax da ngay li ma la defal Moussa may naa la jabar ndax da ngay weddi li ma la defal Moussa may naa la xaalis ndax da ngay weddi li ma la defal gis nga boo xoolee ndax da ngay weddi li ma la defal ndax dangay ngay weddi li ma la defal même chose boobu bokkul defal bu njëkk bi oto la parce moom laa maa ngi ko toftal ci ginnaaw bi ma la may oto bare defal beneen bi jabar la defal beneen bi xaalis la pourtant oto ak xaalis ak jabar bokkul comme ni ñu wuutee nag yay dugg phrase bay dugg foofu noonu lay wuutee moo tax fa bi ay ala rabbikum tukadibaan yàlla xéewal gi mu defal doomu aadama dafa différent bokkuñu léegi nag comme xéewal yi bokkuñu nag kon phrase boobu fa bi ay rabbikum tukadibaan du bokk bismillah bismillah turu yàlla ba fa ñëw ba tax rahmaan rahim ñëw fa mooy baatu allah ci fatiha ci biir fatiha arrahmaani rahim bi ñëw turu yàlla ba mu topp mooy baatu rabb comme allah boo ko la rabb la muy firi rek kon rahmaani rahim bi ñëw ci bismillah ak rahmaani rahim bi ñëw ci rabbil alamin dañu bokk noo leen di mën a xamee pour nga xam arrahmaani rahim sansam bi mu xaw a wuute tuuti ci bismillah ak arrahmaani rahim sansam ni mu xaw a wuute tuuti ci rabb foog nga xam baatu allah foog nga xam baatu rabb te dañuy commencé ci maliki yawmi diin maliki yawmi diin euh, am nay téere yu jàng maliki yawmi diin maliki baax na maliki baax na lan lay firi maliki moom yàlla moom yàlla ci boppam soit maliki bii dafay nekk naat ci rab da nga ne alhamdu da ne lillaahi li lillaahi sant yàlla moo ko moom yàlla moomu arrahmaani attribution la moom yàlla moomu mooy yërëm ñëpp arrahimi mooy yërëm ku ko neex mu nekk attribution la maliki tamit yàlla moomu moom moom mooy buur mooy kilifaawu yow mi diini bis yowmal qiyaam bisu yowmal qiyaam yàlla mi nga xamante ni moom moom bis yowmal qiyaam kon malik yow mi diin boo ko doon firi ci waxu olof bu gàtt da nga naan rek yàlla mii borom bés yàlla ku mooy borom bés léegi nag euh, malik ak malik ñaar yooyu ban moo ci gën a ban moo ci gën a ban moo ci gën a matale malik boo am na ñuy jàng malik yow mi diin malik mooy firi moom malik mooy firi buur léegi kon boo nee baatu malik moo gën a moo gën a foor mooy firi buur malik mooy firi moom ndax kullu malik malik walaysa kullu malik malik nit mën na moom te du doon buur mais buur boo gis moom la mosoo gis benn buur bu moomul mais di nga gis ku moom te du buur kon baatu malik euh, yàlla moomu xam nga baatu malik malik mulk muy firi pouvoir Malik maanaam baatu miim ak laam ak kaaf noo ko tëggee noo ko tëgge li muy signifier yépp mooy ak autorité ak sañ-sañ ak moomeel waaw moom mu baatu Malik tey boo nee Malik mooy firi buur boo nee Malik mooy firi ki moom ki moom buur la ci moom waaw comme yaa ko moom rek yaay buuram maa la moom maay sa buur Malik boo ne baatu mulku mulku mooy pouvoir bi pouvoir lillaahil mulku mulku mooy pouvoir bi ci boppam léegi pouvoir bi ak ki moom pouvoir bi ak ki yilif pouvoir bi yépp baatu ma rekk lay dem ba ci kàddu kàddu nga xam ne wax xam nga tey nit ki su su demee ba war a wax rek dafa mel ni kon ñëpp di ko déglu dafa am genre autorité gu am foofu comme man maa ngi wax ñëpp may déglu dafa mel ni maay seen buur moo tax baatu wax sax miim laam keef la comme alkalaam wa kallama allahu Moussa takliman le fait que nga jàkkaaroo man maa am kàddu bu ma xasee ba tey bu ñu doon réunion wala ñuy def dara ban ni Moussa moom moom kàddu gi wala maam Ousmane Ndiaye moom kàddu gi kon tey fi ne maay buur ñëppay toog di ma déglu kon baatu miim laam kaaf noo ko tëggee rek li muy signifié mooy dafay dellu ci origine moom ak sañ-sañ ak ak ndogal loolu nag yàlla rek moo ko yàlloo moo tax bu yombal xiyaama yàlla taxaw daan ni miim laam kaaf lépp lu jëm ci sañ-sañ jëm ci ak moomeel jëm ci ak autorité man yàlla maa ko moo bu yombal bu ñëpp xasee dee ba pare ba yàlla dekkale ba ñu taxaw ñëppay muuma ñëpp naan kenn du wax yàlla rek mooy taxaw naan li manil mulkul yow ma yàlla rek mooy wax moom rek kay wax ñëpp na pat léegi comme man maay wax na kenn du tontu kenn du def dara kon maa am autorité boobu mooy baatu kalaam bi firi wax. yow mu mooy bés mais mooy bis penc mooy yomal xiyaam léegi yomal xiyaam nag bis penc bés la boo xamante ni ajuwul ci moom bés bi bés bi ajuwul ci règlement mi ngi aju ci li yàlla bëgg c'est-à-dire tey bu ne yow mu bisu bis boo xam yàlla moo ko moom léegi yàlla li mu bëgg ci bés bi tant que pareegul bés bi du taxaw comme par exemple bu yàlla ne bés bii kat bëgg naa cee gis Ousmane Ndiaye. tant que yàlla gisul Ousmane Ndiaye ci bis boobu bis ba du jeexagul donte bis bi day dem ba am ay junni at mais su xasee ba gis Ousmane Ndiaye donte une la bis ba jeex na moo tax boo demee ci alxuraan yenn saa ñi la bés bi mille doon wala yenn la cinquante mille wala nangam ak i nangam nit nag nit ci boppam moo tënku ci bés mais bés moom mi ngi tënku ci yàlla kon yombal xiyaam bésu yombal xiyaam ñu yàlla tënkuwul ci bésu yombal xiyaam pour régler ñu déedéet bésu yombal xiyaam mooy tënku ci régler suñu borom euh, yow kay yaa suba de samedi dinaa fexe ba samedi bi ma def ci nangam yow boo xëyee yaay njëkkalante ak samedi bi di gaawantu bu samedi bi jeexee nga perte mais yàlla moom su xëyee ne samedi bi laay def nangam samedi bi lay toog di xool yàlla tant que yàlla parewul samedi bi du jeex donte samedi bi lay dem junni at mooy yow mooy maliki yow léegi nag kon maliki yow mi ki moom bés bokku la ki nga xamante ni am na sañ-sañ ci bés bi tey bu ne ah samedi kat bésu Ousmane la moom moo ci war a waxtaan. <laughs> damaa war a waxtaan ci bés mais moom ma bés bi su ma waxul bés bi day dem yoonam su ma tardé damay ñàkk bés bi mais yàlla nag bu ne yàlla moo war a wax ci bés bi bés moom day toog di xaar yàlla tànk yàlla waxul bés bi moom nga farak toog bu yàlla pare bi pare moo tax mu ni maliki yow mi diin moo tax kon nga xam ni foofu baatu maliki yow mi diin mooy bu yomal xiyaamee bésu yomal xiyaam bés bi si boppam taxaw ci ndigal yàlla taxaw di ko xaar waxal rek yow li nga bëgg tant que pare woo yow yàlla ci régler jaam ba pare man bés bi maa ngi taxaw di la xool ak diin lan mooy diin diin dina firi diine di firi religion diine dina firi bor ma amé la dara nga war ma koo jox diin tamit dina firi toroxlu toroxlu perte sa lépp wàcce sa bop légui nak bis penc xol fi yàlla nan la ko tudde yow mu diin la ko tudde yow mu diin maanaam mooy bis diine bis penc c'est que baatu diin gi dafa am cohérence lol ak yombal qiyam ndax neena la batu din dina firi religion moy gëm-gëm batu din dina firi fay ma sama bor batu din dina firi toroxlu yomal qiyam nak ñetti circonstances yi ñoo fay daje ki nekkon ci religion diko def ñi wara xol ndax nam doon def religion nam jàppe won di amna diine wala amul diine catégorie wala ñ koy xol ñaaral bi walu bor ñu dajale ñaar ndax amuñu ay contentieux ñi wara fayante bés la bo xam ñëppay torox ñëppay torox lu bam des sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ñëw ba ci suufu arasu suñu borom bëgg su rot sugg sukk sujjóot pour torox lu yàlla ne ko sigil nga laaj ñi jox la kon moy maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nastain iyyaka yaw da yaw yàlla dong na'budu lañu ñuy jaamu wa iyyaka yaw yàlla kessa dong nastain ñi sàkku ndimbal خل إياك نعبد إياك نستعين بالرلاش ولا أمشي مالك يوم الدين يا الله مو من بسبنت مو يدغر مو يدفع لكم نيح كم مو كم مو منك تبو بابا كن أم فسنت سن تكن مونت إشاب بسبنت مو يوير يوير مو يندار بي كن مونت جار فنين فلو فوفو كن نقول سي مучل مو إياك نعبد غنيو نقول جحنا على سما بوب جامبل شلب وإياك نستعين جحنا على سما بوب نعور ما خيتلي سو فين سو تنكوش إياك نعبد مو جامو كن كلو يا nga tënku ci iyyaka nasta'in sàkku won dimbal khalaato kenn ku dul yàlla su yomal qiyamé ba yàlla taxaw ne maliki yawmi din yow do perte parce que da nga nan ko man maa ni nii maa ngi ci catégorie iyyaka na'bu iyyaka nasta'in mais na bu yomal qiyamé ba yàlla taxaw ci maliki yawmi din képp ku toogewul won ci iyyaka na'bu iyyaka nasta'in di nga tumuranke ndax boba kenn du fa jariñ dara euh dafa am luñu wax ci langue arabe damir damir mooy firi pronom damir muttasil ak damiru munfasil euh, damiru munfasil mooy lu mel ni iyaaya iyaa iyaaka iyaakum iyaakum na iyaa nangam iyaa bam jeex léegi damiru munfasil buñ ko indee ci làngu arab dafay firi ñaar bi si njëkk mooy taxsiis mooy kii yow lañ ko jagleel yow lañ ko jagleel ñaareel bi ñaareel bi mooy amul solution mom rek la kon batu na'budu al ibada bi firi jaamu kin ko jaklel ken rek la war don mu yàlla ki nga xamanteni ne waruñu ko defal kanen ku dul yàlla yàlla la subhanahu wa taala motax waxul na'budu ka naabudu ka dañ lay jaamu tay damiru muttasil buñ ko indee mën na nekk sax moom mérito na ko mais am na kaneen ku ko mérito tey bu ne woon naabudu ko ñi ngi lay jaamu yow yàlla kon mën nañoo jaamu yàlla jaamu kaneen te du si yàq dara mais boo nee iyaaka maanaam mafuul ak jaar ak majruur bis bu nu ko jiitalee yu fii du at at at at taxsiis wal xasr kii lañ ko jagleel tëj nañ bunt bi kaneen du si dugg kaneen boo ko si moom kese la wa iyaaka nastain al istiaana istiaana fii bii fii di ndimbal bokkul tamit ak ndimbalu musaada wala taawun c'est-à-dire nga dem ci nit na dama bëgg nga dimbale ma ci 1000 francs wala nga dimbale ma ci sako ciep koku duggal ci iyyaka nastain isti'ana bi moy ndimbal bo xam dafa jëm ci walu ak jaamu yàlla motax wastainu bis sabr was salat comme li yéefari don wax ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa comme ki jël xërëm bi tek ko ne damay dimbaliku ci xërëm bi pour jaamu yàlla bo moy isti'ana bu haram wala mu jël ab estati teg ko ne estati bi daf may dimbale ci sama jaamu yàlla mais bu dee ndimbal loo xamante ni ci ci ci ci wàllu ak ndoom aadama la lekk la naan la kooku mën nga ko def keneen ku du yàlla mën nga dem si ni mu dimbal la nga lekk mën nga dem si nga dem si ni mu la sax nooy jaamoo yàlla mais di jaamu nit pour di ko dimbandikoo pour àgg ci yàlla boobu mooy dugg foofu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqim ihdina na mustaqim ihdina moy yow yàlla yàlla nga ma jubal yàlla nga ñu as-sirata teg ñu ci yoon al mustaqim bu djubbi euh yow yaangi ñaan ak njub njub gi njub gi nga ñaan yàlla moy mu tegg la ci yoon wo xamanteni dëngul mooy ihdina al mustaqim ihd mom la wax fi'lu fi'lu du'a'i xam nga fi'lu amr dafa am moy verbe bo xamni ordre la mais yàlla kenn du ko jox ordre parce que kilifa kenn du ko jox ordre dang koy ñaan motax fi'lu du'a'i la yow yàlla maa ngi lay ñaan moo tax boo koy firi sax bu doon diggante nit la nga bëgg nit wax ko ne ko nit ki jubal ma ci yoon wu jëm place sàngam ihdini ila tariqin euh, as asluku fii da nga naan ko mën nga ne ko fi'lu amr la parce que nit la rek mën nga koo mën nga ko mu digal la mais bu dee yàlla nag kenn du sàkku ci kenn du ko digal mais da koy ñaan léegi nag moom lan la ñaan yàlla mooy siraatal mustaqim yoon wu jub siraat baatu siraat siraat ñaar la dafa am bu abstrait am bu concret dafa am siraat boo xamante ni ay jikko la ay vertu la mais am na siraat boo xamante ni ak buum la booy teg sa tànk di jéggi di dem maanaam genre pont la booy dox siraat bi nga xam ne ay jikko la ñàngaleem lislaam la moo nekk àdduna siraat bi nga xamante ni dafa concret bu palpable la bu ñuy teg tànk di si dox di si jéggi mooy siraat bi ñuy jéggi yombal xiyaam léegi ñaari siraat yooyu nag dañoo correspondant bi nga xam ne ay jikko la mu nekk si àdduna dafa correspondant ak bi nga xamante ni bu concret la bu ñuy laal boo tegoo ci biir doo ko wàcc ba yombal xiyaam nga yéeg dem képp koo xam ne da tegu ci siraatu àdduna siraatu àdduna mooy lan mooy njub mbaax bu boo tegoo ci siraatu yombal xiyaam doo daanu day yóbbu àjjana képp koo xam ne teguwoo woon ci siraatu àdduna bii firi njub ak njàngaleem lislaam bu yombal xiyaame boo tegoo ci siraatu yombal xiyaam da ngay daanu mooy ihdina siraatu المustaqim léegi siraatal mustaqim yoon wu jub boobu ban yoon la mu ni siraatal ladina anamta alayhim xayri maxdubi alayhim wala daal yow yàlla yàlla nag mu teg ci aw yoon mu mel ni ban yoon la yoon wi nga xamante ni ña fa jaar àgg nañ ña fa jaarul ña fa jaarul mere nga leen ña fa jaar te jaare wuñ fa nañ fa war a jaare réer nañu parce que yoon ñett la ki jaar ci yoon wi àgg benn ak ki jaarul ci yoon wi ñaar ak ki jaar ci yoon bi te sàmmantewul ak règlement yoon bi ndax boo teg woon ci yoon ñun la boo demee ba yàgg da ngay def gauche yow nga nga defoo gauche nga continuer droite wàcc nga yoon ba wala boo demee ba yàgg war a taxaw taxawoo nga dem da ngaa wàcc yoon bi kon ñetti ñii la ki jaar ci yoon wi ba àgg ak ki jaarul ci yoon wi ak ki jaar ci yoon wi te méngoowul ak nañ war a jaara ci yoon bi léegi man nag li ma lay ñaan mooy yoon wi nga xamante ni ña fa jaar jaar nañ fa nañ fa war a jaare ba àgg ñooñu mooy ñan min annabiyina wa siddiqin wa shuhadaa te alquran wax ko mooy yonent yi ak martir yi ak nit ñu baax ñi mooy siraatal siraatal mustaqim léegi boo ñëwee ci aaya bi di siraatal ladina anamta alayhim gayril maxdubi alayhim wala dalin foofu ñetti catégorie moo fa am ki baax siraatal amta alayhim mooy jullit ñi saxaaba yi yonent yu baax yi ñaareel bi moy ñi nga xamante ay nasaran lañ ñooñu yàlla attribuer leen wala dalil ak ñi nga xam ay juif lañ ñu jox leen attribution xayril maxduubi lu tax parce que juif ñom seen yonent dafa ñëw leralal leen yoon yi bañ xamni yoon wi ni la mais ñi bañ ca jaar ñu dañ leen di mere bu dee nasaraan yi nak ñom seen yoon jotu ñu leen ko leral dañu dem ba leen koy waja wax rek ñi keryal yonent yàlla Isa yàlla jël ko ñu daal di sànku xamatuñ fu ñuy jaar nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam mi leeral nag ñoom teg fa mu leeral aw yoonam ay xeetam jaar fa mooy siraatal ladina anamta alayhim dafa am lu ñuy wax adabul uslub wala uslub uslubul adab maanaam alquran dafa am teggin ni ñuy waxantee xam nga ci baatu xéewal bii firi niama bii firi xéewal dafa jël faa'il bi ne yow yàlla ana amta yaa leen xéewalal yow yàlla yaa leen defal xéewal te baatu xadab bi firi mer néewul xadabta alayhim baatu daal bi firi wér waxul adlalta alayhim réer sànkal nga leen mais dafa ne xayril maxdub ñi xam dañ leen a mere wala daalin mais baatu niama bi firi xéewal wéeru ko ci yàlla loolu teggi na waxee na mooy ni mag ñi daan def bu njëkk mu njëkk dañ daan yar nit yar xale ba bu ñëwee naan la ah yow kat papa may nga sama rakk xaalis te man kenn mayu ma gis nga ci xam nga li mu war a wax may nga sama rakk xaalis te yow mayoo ma du teggin may nga sama rakk xaalis parce que baatu maye dafa baax mais ñàkk maye day nuru ak nay mu am teggin ne yow yàlla may nga sama rakk xaalis man na kenn mayu ma te li mu war a wax mooy may nga sama rakk xaalis man mayoo ma wala man kat yow eh, may nga sama rakk xaalis. man nag dañ maa bañ a may te néewa ko danga maa bañ a may mooy ana amta alayhim gayril maxdubi alayhim wala addalin boo gisee yàlla subhanahu wa taala bi mu nee yoon wu jub ñay jaar si yoon dañuy alladina ña nga xam ne alladina yàlla bu dee indi thème wala sujet en général li si gën a bëri du ko personnaliser déedéet da koy indi rek pour pour pour ñu mën see jàngite na yoon ñi nga xam te am nañu xéewal cité wu leen cité wul seen tur lu tax cité wul seen tur parce que person personnalisé wul débat bi li mu bëgg mooy jikko yooyu nekk ci ñoom ku mu nekk ci ñoom rek ci nga bokk moo tax alquran bu dee wax jikko ju baax bu nekk si nit ba mu baax loolu ba tax mu si wàcce aaya du tudd nit ki en général bu dee jikko ju bon tamit ba muy wàcce aaya du tu mën na bañ a tudd turu nit ki mais jëf jëlee tudd rek ما جهنا سي اكزامبل تاي بو خوله سي سوره الليل بي القران دي وخك سيدنا ابو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى كي حم داي جوخي علالم تي يالا رك تخ تا خول سي ريتور اندك سيدي اندك باخ فتور ابو بكر تودو سار بس ابو بكر بس دو جيمي ابو بكر مي جفجي جي كيب كو جف جف جوجو رك يانغ سي بير سوره يوسف بي jabaru bur bi di sàkk yusuf ba yàlla di netti mbir ma surtout yusuf bo xoolee tudd na fa cité na fa sur turu yusuf lu baree bare mais ba legi turu ndaw ci cité wuko ko waraawadatu lati lëtii indi na fa yusuf lu parce que jëf ji dafa xaw a ñàkk fayda doye di personne bi intéressé wuko mais jëf ji ci bopam la kep ku jëf lool rek ci non ngay bok moy siratal ladina anamta alayhim gayril maxdubi alayhim wala dalin fatiha bi mi ngi noonu juróom-ñaari aaya la ci li gën a wér ci boroom xam-xam yi am na ñu ko def juróom-benn am na ko def juróom-ñetti aaya mais li nga xamante ni moo gën a wér dañu dëppoo si quatre vingt pour cent mooy sept aaya la léegi ci biir sept aaya nag euh, façon fa ñuy defante aaya la am la am wuute tuuti am na ñoo xam ne bismillahi rahmaani rahim ñu ko aaya dañ koo booleeg alhamdulilahi rabbi alamin ñooñu boo ñëwee ba si ana amta alayhim fa lañ dagg aaya ba def ko aaya mu nekk set am ñoo xam ne bismillahi rahmaani rahim rek la ñu def aaya alhamdulilah rabbil alamin aaya toppal ko ba mu nekk set aaya loolu yonente salaa sallam doon junj ne yàlla wax saxaaba ne ko yàlla jox na ma sapan min almasal masaan sapan mooy firi ñaar juróom-ñaar muy set masaan mooy lu ñuy deltante lu ñuy def di ko defaat parce que boo jullee premier rak da ngay jàng fatiha deuxième rak nga jàng war fatiha troisième raak nga jàngaat quatrième raak nga jàngaat loo xam ne da nga koy def di ko répété di ko répété mooy albaatu masaani moo tax boo xoolee nit jullit mun a xëy suba ba ngoon te jàngul faatiha mënut a nekk parce que julli mënut a xëy suba ba ngoon te julliwul te mënoo julli sans faatiha kon nit ku nekk saa yu xëyee dina soxla faatiha 17 fois nit ku nekk dina soxla faatiha 17 fois pourquoi muy soxla faatiha 17 fois parce que ci nit am na ay cëram 17 cër yu nekk si moom yoo xamante ni bu si nekk dafa war a fonctionner te la koy jox. énergie ak sin ba mën a fonctionner moo dee fatihatul kitab kon nag fatiha ngi noonu ci beneen numéro ñu dugg ci beneen saar alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh